fii ci jumaay Tuubaa ji lañu leen jox rendez-vous dëppoo nag lundi 27 juin 2022 bu 8h jotee ujaaj ji nga xam ne ñoo fa yéene dem ca Makkatal Mukarama jaare ci agence Xaadim Rasul Voyage tàmbale ñëw ànd ak seeni mbokk yi ah? agence Xaadim Rasul voyage at mu jot mboolem ujaaj yi nga xam ne da leen yóbbu ca Makkatal Mukarrama te ñu dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba fi nga xam ne moo di ci jumaay Touba ji lañ leen di dajale ginnaaw bu ñu ziyaara barabu Cheikhul Xaadim daje bii nag ñu fi daje doon na cosaan waaye tamit ki nga xam ne mooy suñu si njiital suñu kilifa gi nga xamante ne si moom muy El Hadji Moulay Seck di taalibe jëf-jëfinu taalibe moo tax nag ujaajam yi ko suñu borom mbooleel mu namm nag ñuy déparé ci suñu sang bi jëm ca sangam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam ngir joxe seen juróomeelu ponk acc di ñaan suñu borom jàppandal leen ko te yombalal leen ko. mu doon jotaay bu am solo boo xam ne Alaaji Mulaay yàgg na ko def fii ci jumaa yi Touba muy déparé ci jumaa yi Touba wàcc ca Madinal Munawwara muy euh, minal minal xaadimi ilal maxdum mooy bàyyi ko ci ki doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci yonent bi mu doon liggéeyal kon pèlerin yooyu comme ni ko euh, sëriñ Modou Xabbaan jàllale ci kaddu euh, sëriñ Abdoul Ahad sol léegi di kaddu sëriñ Muntaxa mooy ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci xaadimu euh, rasul di dem ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wàcc fa doog dem dem makkatal mukarama def seen wàccaayu acc at mu jot jotaay bi sëriñ Mountakha Mbacké moom sëriñ ba Bassirou xalif général des Mourides dana am ndaw lu ko fi teewal sëriñ Xaban Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadel Mbacké moo ko fi teewaloon sëriñ Abdou bu Bousso yëkkati ay kàddu ci turam dénkaat mboolem ujaaj yi ci ni nga xam ne noonu lañu war a nekkee ci dëkk bu sell ba nuyu itam ñi nga xam ne ñoo jiite Xaadimu Rasul Voyage di sëriñ Moulay Seck ak ñi mu àndal liggéey bi di sëriñ Moustapha Dieng ñoom mbooleem ñi nga xam ne rek ñooy yëngu ci wàllu assance bi sëriñ bi rek bi muy ñëw mi ngi ànd ak sëriñ Maxtaar Seck jë bàyyi ca sëriñ ba mu wax ne mi ngi leen di nuyu bu baax moom seex Cheikh Mouhamadul Mountakha ci làmmiñu sëriñ Xabaan di leen ñaanalit suñ borom teg leen ci yoonu jàmm ngeen dem ci jàmm àgg ci jàmm jooxe seeni farata na ngeen ko bëggee ni leen ko suñu borom sante ba lépp mat ngeen dellusiwaat jàmm fekk fi jàmm muy wax nag ne am na mbégte ci mbooleem jullit ñi nga xam ne am nañu yéene bàyyikoo fii dem siyaare ji joxe ci seen ponk juróomeel waaye mbégte mi gën a rëy nag mi nga amee ci ñii bàyyikoo ci Cheikhul Khadim war a jëm ca jëwriñam ju mag joojee di kilifaam gu tedd gi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne moom day amul lu gën a dal am xelam bàyyi ko fii ci jumaay sëriñ Touba ji wàcc ca jumaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko ci barabu Cheikhul Khadim bi wàcc ci barabu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yaakaar naa ne loolu amul benn taalibe bu am lu gën a dal am xelam ci lool sëriñ bi nag wax ne ci biir loolu nag mu ngi leen di dénk lim leen di dénk mooy dangeen a jóg ngir jaamu ji yàlla di mottali ji ponk bi nga xam ne mooy ponk juróomeel bi suñu borom santaane mooy bii ngeen di waajal muy xaj néegub yàlla ba sëriñ bi wax na nag euh, nit su bàyyi ko fi barab bu toll ne diggante bi war a dox diggante bu toll ne bii ngeen di dox ngir di jaamu jàll rek war nañoo bàyyi xel li leen tax a jóg bu ñu demee loola rek ñu nekk ca jéem a seen kemtalaay kàttan ba defe ko nam ware ngir ñu mën caa am lañ cay sàkku dem bi it yombul te ñàkk ngeen ci lu bari ci ay coono ñàkk ci lu bari ci alal kon nag su ngeen xasee ba dem rekk bu leen tayel joo ci ngeen am lu ngeen war a def te defu leen ko ñun nag ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci turu Serigne Afia ñi ngi delloo nuyoo Serigne Modou Xabban te di ko siyaara waaye di leen yóbbante nag ab nuyoo ci ku tedd kookee su ngeen demee ngeen nuyul ni ko te nuyul ñu sunu njaatige yi nga xam ne ñoo nekk ci ñaari jumam yooyee di ko fa liggéeyal di gërëm ñëpp di leen ñaanal ci barkeb Cheikh Khadim mii ngeen bàyyi ko ak barkeb kilifaam ku tedd googee ngeen jëm sunu borom defal leen aj gu ñu nangu ak yoon wu neex wu sedd wu dal ba ngeen jël si jàmm ci barkeb Cheikh Khadim ci turu ujaaj yi Serigne Mbacke Anta yëkkati fay kàddu moom it ñaaxaat mboolem ujaaj yi nga xam ne ñoom lañ fas yéene àndal ca màkkatal mukarrama ci jikko yi nga xam ne moom lañ war a làmboo ci buñ fa demee nag fas yéene matale jaamu yàlla yañ fay digale yëpp waaye fa yéene faat fu ñu taxaw rek nuy ñaan te bu nuy ñaanal bu ñu ñaanalee sunu bopp ñu ñaanalal ñiñ fi bàyyi ñaanal julliti àddina bi yëpp ndax ñëpp xaj nañ ci dañ bañ a xatal dañ xam ne moment la yoo xam ne nii yàggul kon muñ la laaj muñ bu baax a baax la laaj ti bañ a fexe ba bañ lor kenn waaye fexe ba ku la lor itam nga jéggal ko ngir jëm yàlla. limub ujaaj yi nga xam ne moom lañ jox réewum Sénégal ci atum dañu ko wàññi moo tax agence Xaadim Rasul voyage lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñetti ujaaj lay yóbbu ca màkkatal mukarama ñuy bàyyi ko ci gox yu fasantikoo ci biir Sénégal. lim bi nag mu ngi toll liñ daan convoyé daana dem ci ay 800 ren nag ñu ci li déparé Touba ñenn ñaa nga Dakar. ñu ci des ñu ngi ci yeneen dëkk yi ci Sénégal yëpp Ziguinchor fu nekk am nañ fa ay ujaaj dañuy dajeek ñoom waaye nag suñu mbokk taalibe yi nekk fii euh, suñu njiit li moom dafa taamu saa su ne ñu jóge ci suñu kilifa gi jëm ca kilifaam gële Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ginnaaw bu leen Serigne Modou Xaban moom Cheikh Modou Fadal Mbacke ñaanale mboolem ujaaj yi àndandoo nañ génnee ci jumaay Tuubaa ji daal di jubali ci bus bi nga xam ni mi ngi taxawoon ci buntu kër Serigne Fallou Mbacke ñoom ñëpp. ñu woo leen kenn par kenn jébbal leen seeni billets ak mbooleem seeni kayit yi nga xam ne mënuñu koo ñàkk ci voyage bi bi lépp matee ci lañ fi bàyyi ko jubali aéroport Blaise Diagne ci fàttali agence Khadim Rasoul voyage dajale woon na mboolem ujaaj yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba te mu fas yéene leen yóbbu ca Makkatal Mukarrama ci bés boo xam ne dañu doon amal conférence doon leen leeral lépp loo xam ne moo jëm ci aj gi ngir lenn bañ leen ci lënt ak ni nga xam ne noonu lañ war a nekkee ci dëkk bu sell ba